ngeen mbokku internet Yegle TV di am mbégte saa su ne di ànd ak yéen ci sen chaîne préférée Yegle TV di len wax bu len faté di abonné wu di jot ay information en temps euh, réel tay nak euh, bu ngeen ma gissé ngeen xamné tay dañu ñëw euh, fi ci université Cheikh Anta Diop wax feñ dafa ñëw fi ci université Cheikh Anta Diop and ak étudiants di len laaj naka lañu gissé agression yi nga xamantene chaque fois day gën di yokku rayu ñaaw yi ñi néméku bu ci muju moy bu demb bi nga xamantene mo moo fofu ci Pikine muy femme bi ñu fekk ci lieu de travail am ba pare rendi ko ñu leen di laaj ñoom étudiants yi lan moo ci seen xalaat. en fait euh, du ma ne sax rey bu ñaaw mais rey yu ñaaw li ñuy gis léegi parce que c'est tout à fait anormal que ñuy constater loolu noonu depuis booba tey war ci jër ay mesures yi nga xam ne peut-être moom mooy jëmale réew mi kanam parce que aussi quoi qu'on puisse dire tey am na yenn rey yi maanaam wartuñ ko permettre fii ci dëkk bi d'autant plus que dëkk bi dëkk loi la. dëkk boo xam ne aussi ay normes moo fi dawa ay règles yoo xam ne dañ ko établir yooyu noonu je pense que dañ ci waroon jël ay mesures maanaam rey c'est pas la première fois que ça que muy am mais juste que maanaam pour man je dis pas ci ay mesures mais mesures yi ñu ci jël des na ko en fait dañu war a gën a renforcer mesures ñu war a ñu gën a mën a permettre nit ku ne nekk ci stabilité parce que lii boo gisee da ngay tiit déjà sa xel du dal. je pense que loolu ne nekkul moy idéal bi idéal moy mooy lan état tey na jël ay propre matuwaayam pour djema fagaagal faagaagal nga xamné ne ñoo nekk di rey nit ñi ci mbéd mi lolu dañ ko wara arrêter une bonne fois pour toutes ça doit cesser waaw té lolu état moko wara préconiser état mo wara jël li nga xam moy mesures yi nga xamné aussi yokku yokku sécurité bi ci dëkk bi lolu mëna a am s'il faut même ñu installer partout des caméras parce que au moins ça ñu mëna anticiper au préalable des faits tamit c'est important je pense que loolu que nous devons ko établir mettre en place euh, je pense que nous nañ am aussi enrayer ce qui ci surface bi surtout au Sénégal Nous devons nit aussi xam nga seen fii di dëgërul bu baax am atrocité atrocités yi boo koy gis rek da ngay tiit te loolu dafa Vous savez, d'une manière générale, l'agression, c'est quelque chose de plus fallacieux que possible. Et les humains se lancent dans des actions un peu délibérées et ils pensent que la violence peut résoudre quelque chose. En réalité, la violence ne résout presque rien. Et du côté des, jeunes filles assassinées, se trouvant enceintes, vraiment, c'est le cas le plus délicat que possible. Et j'aimerais juste dire que vous savez que l'étendue du territoire du, du Sénégal est également vaste et que l'État sénégalais fait de son mieux pour contrôler tout ce qui se passe, mais les incursions, on ne peut pas tout, euh, contrôler. Il y a ça aussi, au fait. Il ça aussi. Les incursions, des gens qui se passent de façon inaperçue, tu peux voir quelqu'un, tu ne peux pas sentir que c'est lui, quelqu'un de violent, tu ne peux pas sentir. Mais c'est les axes qui déterminent une personne, il y a ça aussi, au fait. vraiment avant tout parce que gis que temps il passé surtout euh, si côté tabaski bii ñu jëm si ay jeunes ñii di rey ñii ñuy nangu seen alal donc geste mu nekk benn situation boo xam vraiment c'est très déplorable parce que man sax du may faral di suivre télé bu baax a baax parce que ama yenn temps mais nak, boo duggee YouTube moom la ñuy njëkk pour vous montrer que donc situation bi toll na si benn moment boo xamante ni critique na métier. na mais vraiment man moom bëgg naa gouvernement bi aussi mu jël si ay responsabilités yu mat ce que ce que, parce que quoi qu'on puisse dire nit ñi moom wax rek lañ ci mën ak euh, tamit naqarlu mais j'espère que ne état bi moom moo ci war a mën a jël benn responsabilité maanaam mu condamné loolu noonu parce que ay jeunes rek ñoo koy def ñi nga xam te a liggéey wala waroon nañu mën baax ñu xamee cause bi ba ñu jëm a doon donc il faut a sanctionné ñi nga xamante ñi ngi leen di jàpp jàpp nit mu def benn crime ren di nga tëj ko deux mois trois bàyyi j'espère que ni day yokk ni nga xamante ni moom lañu ut beneen genre de résolution boo xamante ni képp koo xam dem nga bu ko def acte bi boo xalaatee loolu rek j'espère que di nga ko war a mën a bàyyi pour man euh, loolu moo fi nekkagum sama xalaat pour le moment li nga xam ne gouvernement bi war na ko mën a def ak population bi aussi war nañ di mën a sóoraale yéen yi bu baax a baax a baax tamit. Mhm. benn moom ku rey ñu rey la en plus euh, prisonniers yi ñuy gracier ñu xool ñi ñu war a gracier wu parce que koo xamante ni bii def na rey na deux fois nit wala trois fois nit nga nga nga gracier ko mu génnaat day defaat la même chose bon su ma sañoon daal. Macky bu mën na ci dara mën na ko ci sax indi peine de mort ku ray la. man sama xalaat si eh, eh, question de sécurité la quoi euh état Sénégal bi jug di combattre parce que c'est une question de violence parce que ku ñu ray démb qui naan gars di wave c'est une question de sécurité là, parce que foofu noonu dañoo déployer euh, ces agents un peu partout pour essayer de bien cerner parce que les gens sont totalement exposés. Ça, c'est une question de, sécurité nationale. Vraiment, on doit faire appel à l'État pour veiller à la sécurité de, sa société. C'est ce qui est primordial d'ailleurs. vie sur la sécurité du peuple, c'est primordial. C'est un fléau qu'on doit lutter contre. Ouais. loolu la xalaat daal mais gars yi dañu war a si loolu